om ñuy wax kasaw ko ci Sénégal Sénégal li ñu war a bari na gis nga ñooñu lépp lu laay ci Ablaye Wade 2024 réew mi dañ ko dañ dañ leen fa ra jëlee raxas leen fi. am na nga egg aussi sori na de. déedéet parce que li laal ci Abdoulaye Wade. waaw du rek ay politique. ak la non bari na ñeneen ñoo xam ne. waxal ma laal nañ ci Abdoulaye Wade te duñu ay politique. waxal ma ku ca laal ba mën naa la wax par exemple leen sunu suuf si nga xam da koo saax saaxee. ci sama sama sama sama livre yëpp bu ci nekk dama ciy accordé chapitre ni mu sax saxee sunu suuf si loolu am nañu ci am responsabilité suuf soo xam ne ñëpp ko bokk le domaine publique ñëpp a ko bokk yow man paysan ba ca kokki nangam nga fab ko daggate ko jox ko ñoo xam ne ñii ku ca nekk ba nga ko jox xam nga ni ma ngaa ki kër yu dul jeex ma ngaa xaalis yu dul jeex nga daggate ko jox leen ko ma ngi ko commencé ca zone de captage ba muy soog a ñëw lépp la dagg jox ko ministre député kenn desut te kooku du temps des socialistes ba ñu ko bëggee tam dañ ne dañ ne non non. parce que zone de captage la dañoo ba ñu Patte fa lañ ko bëggoon a njëkk def yow nga ñëw daggate ko joxe fii réserve foncière foire c'est extraordinaire ce que Abdoulaye Wade a fait je le bu ma ko waxee nag bu ne dama c'est entre inspecteur des impôts inspecteur des, des, du trésor euh, douane euh, ministre euh, directeur nangam chef religieux généraux officiers supérieurs officiers généraux ñoom rek ñoo saxaxa suñu tool yi te ñoo xam ne mën nañ seen bopp ba pare léegi gone goo xam ne gii un jeune couple boo xam dañoo war a tabax mu. ca gannaaw léegi léegi léegi xam nga lii citation mën na la ci fekk. at na suba nañu ak non dama ni. waaw par exemple da nga tudd. je le ay corps yoo wax. je répète waaw lu ma la ma yombal leen. waaw xam nga man euh, préfacé naa livre rek ñu yóbbu ma tribunal. waaw ah, mais non da nga danga nga da nga da nga cité ay corps déglu léegi léegi gën a garaaw. déglu dama lay kaay dama lay wax ma ni Pape. sa gestion foncière est catastrophique. calamité non xam nga bari wax wax. waaye déglul ak ay preuve dafa am importance. déglul ma wax la déglul. li ngay wax. ñi ñii ñu ko jox dama ne. waaw ñii ñu ko jox. ñi ko saax saaxe séddoo ko mooy inspecteur des impôts inspecteur du trésor inspecteur nangam euh, officiers généraux officier supérieurs ak i chefs religieux ak i notables du yow du man. wala boog ñu jógee Ablaye Wade wala ñu jógee Macky Sall maa ko wax mhm. waaw d'accord donc nga assumé lu la ci. mais waaw non non non loolu féete na bor. loolu kay wax nga ko parce que da nga cité ay corps wax ko tudd ko. mais alo mu xam naa ne bu ñu taxawee ci loolu ñu jëlal temps bu am solo te am na aussi actualité lu ñu ci bëgg a bu yàggul président Macky Sall def na benn génn gëj na sax def yenn sortie yi euh, mu def ko ci. Euh, France 24 euh, sortie boobu dañ ciy jukki rek ay kàddu yoo xam ne wax na ko ci wax na ci lu bari nag. wax dëgg mm-hmm. yàlla wax na lu jëm ci événement yi nga xam ne moo fi amoon mu wax ni loolu dootu fi amati muy événement mars yi mooy yi nga xam ni daanaka 8 mars la woon mu nekkoon événement yu tàngoon euh, ci bi nga xamee ni convoqué woon nañ ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi mu waxee loolu que lu mel noonu dootu fi amati. Mm-hmm. nan nga déggee kàddu yooyu. man de bu ma doon président de du def noonu dem ba France ànd ak euh, Ablaye Mbaye Peex di tëkku maanaam ji nga euh, Macky Sall. non ñaari ñaari yi bokkul. ok ah, c'est-à-dire non non bokkul bokkul. ah bële ci la doon wax ni kenn mënu ma xoxotal. waaw fii par exemple dafa wax beneen bi ci mooy sortie bi mu. def France 24 waaw ah c'est différent. ok France 24 lu mu wax nga ni. wax na lu jëm ci dafa répété rek parce que fële dafa noo tëkku. <laughs> c'est la même chose. Mhm. France daf doo tëkku yow ñu ñu teg ci boppu xeet nga war a yemale ñëpp nga dem ba foofa dajale sa waa sa sa waa kër naan leen c'est extraordinaire dafa xaaj sénégalais ñaari pàcc ñi ànd ak ñoom ñi ànd ak moom lu leen neex def ñàkkuñu dara ñi àndul ak ñoom ñoom lu def ñoo tooñ mhm. voilà la gouvernance de Macky Sall te loolu la wane France 24 loolu la wane France fële mais li mu wax aussi que lu mel noonu dootu fi amati. Hmm. mais loolu ay garanti loolu loolu loolu la ñuy xaar ci président fitna bu mel noonu. ay nit ñàkk ci seen alal fexe ba loolu ay nit ñàkk ci seen bakkan. damay fexe xam nga la ko indi. te kaaraange askan wi ak seen alal mu war a nekk ci loxoom. waaw est-ce que kaddu yooyu aussi nekkul kaddu yu war a dalal bi. man day dalul sama xel. dem naan léemoon man bu doon mën mais mais bu mën a déglu li ma wax bu doon mën a. jarul ma ko damay fexe ba dootul am du ma ko wax jarul wax. moom wóolu na boppam xam na ne dootu fi am jarul wax parce que bu waxee day yee fitna te la mu waxoon la mu waxoon waxoon waxoo euh, ak euh, ku mel ni euh, sëñ sëñ Muntaxa wax ko feneen wax ko feneen loolu rek waroon naa toon wax loolu ma ni même loola bu ko naree bu ma doon moom du ma ko wax damay xam la ma xam lii kat am na fi sàgganoon na nu maanaam dootu fi am waaye du ma ko wax parce que wax ko yee fitna la waaw mais ci yow yee fitna la. ah waaye war na dalal xelu askan bi tam en tant que président de la xel. c'est-à-dire yaa ko jàppewul dalal xel déglul dama ne. jëru def ko na xam na boppam ko xam na apprécier na force yi ma am yëpp wóor na ko ni loolu dootu fi am na tekk rek di def vivo dootu fi demul kenn dootu ko wax. d'accord am na leneen loo xam ni itam yëkkati na ko fa mu jëm ci diggante lu aju ci mbiru amnistie Euh, fee yi nga xam ni moo làmboo mbiru Karim Wade mbiru xalifa Sall ba ñu tudd leen ñoom ñaar nommément bi nga déggee loolu itam am nga ci jàngat ci wàll woowu. ji nga ji nga Macky la mu waxoon ak noonu bu ko defoon lii lépp mën nañ fa bañ a jaar bu defoon la mu waxoon wala yàlla xam na ko ne. la mu waxoon c'est-à-dire. la mu diggee woon lépp bu ko bu ko waxee woon na mu diggee woon moom la yore réew mi par rapport à la corruption par rapport au détournement de deniers publics la mu ne woon bu ma ñëwee danaa xeex ger dootu fi am képp koo xam ne kii ger nga wala détour nga da yoon dana ko defanteek yéen te d'ailleurs danaa teg kuréel goo xam ne gii mooy nag fekk mi ngi jàkkaarloo mu ne leen na ngeen moytu seen bopp yéen a créé CREI yi parce que CREI yi Abdoulaye Abdou Diouf ko fi indi woon bàyyi ko fi dem Abdoulaye Wade ñëw mu ni ñukk moom mu ñëw dindi ko mu ni yee naa kër yi teg naa fi kuréel guy saytu guñ daan OFNAC kër yi nga nekkoon foofu si OFNAC nga nekkoon OFNAC yow bu wér a wér ok dégg nga mhm. kër yi pour ñee la waaye OFNAC pour nun la mhm. jeune ne défendrai personne mhm. du maar kenn et eh, je ne défendrai personne ba mu ñëwee def la mu waxoon ak li muy def dafa mel ni yàlla ak yàlla. loolu aju ci amnistie bi. déglul dama ne bu ñëw bu defoon loolu bu ñëwoon jaaral lépp ci yoon. ba ñu defee def seeni enquete enquête la ñu def ba ni ñaar fukki at ñaar fukk ak juróom yi ñoo saax saaxay la jël nañu nangam jël nañu nangam am ñu ne sax 4000 milliards. loolu tàcc woon nga ci. ba mu waxee loolu. ma ne bi mu waxee loolu tàcc woon nga ci. normalement de boo loolu kay ku ko dégg war a kontaan ci yoon waaye mu def ca kii après génn ca dama bu ko jaarle woon ne bàyyi bàyyi kook yoon yoon laa la wax jërul sax kër yi wala jërul kër yi yi justice ordinaire rek ñoo ñu mu siite ñëpp jàpp na leen te boo leen jàppoon ci yoon tëj leen ci yoon kenn du xalaat affaire grâce kii am amnistie pourquoi yow seet nga def ngay gëstu ba xam ne suru réew mi ñoo ko ñoo ko luubal nga bàyyi leen ak yoon yoon daa leen daan leen kenn dootoo affaire grâce ak affaire ay caaxaan lool.